dëkku gay mooy sunu gaal li fi jógee bësin dëggal bësin salaamaaleykum maaleykum salaam sëñ bi na def maa leen di sant euh, tey dañu wàcc di laaj di leen laajte yi ñi nga xamante ni ñun ñi dugg Dakar dem dikki nan nga gisee bus Dakar dem dikki waaw bus dakaar dem dikki de ngeen ñu ngi koy rafetlu bu baax daal bon ñun ñu ciy dugg ñu ngi ciy gis ñu ngi ciy gis suñ bopp bu baax a baax a baax a baax waaw li moom xewal la quoi xewal bu baax a baax a baax. paas bi paas bi du leen gaañ paas bi yomb na. non du ñu gaañ comme li ñuy jaay nii rek après xam nga bénéfice bi ñu ciy dàq quoi xam nga ci ngay jëlaat joxewaat ko xam nga nit moom ak li la yàlla sédd moom foog nga joxe ci quoi xam nga mooy loolu. Euh, nan nga gisee ñi nga xamante ne parfois dañuy taal bus di leen di di si sànni xeer wala di ko taal di ko saboté noo gisee ñoo ah ñooñ ci ci gàttal rek ñooñ dañoo kon quoi parce que doo. doo am sa alal ba pare ñëw di ko yàqate yaa ngi dégg loo xam ne ñëpp ko bokk moom jarul yàq quoi xam nga doxal nga def sa mars mais jarul ngay taal ay bis quoi naay sul xam nga mooy loolu. jërëjëf merci beaucoup. waaw ok merci hein